sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñeenti nit ñi yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag ñi ñuy teewlu ci jamono yi ñu nekk nii ci seen émission diine ak jamono seen émission diine ak jamono ñëwaatee ak sujet d'actualité actualité bi nag nekk gare routière de Baux Maraîchers nga xam ne ku nekk itam dégg nga turam muy gare routière boo xamante ne dañ ko daan sàkkul yàgg ndax itam dañ ne woon faw ñu moderniser lii di transport ci biir Sénégal ñu moderniser ko nag mbir mi ñëw itam am ay jafe yu bëri yu ci nekk ca njalbeen dañ ne woon kon tàmbali la nañ xool fan la ñu aw ak gaaru ceer bi ndax itam faw ñu dem fa ñii ne yére bu boo ko solul doo xam ndax dafa jot na wala manqué na bañ ko solee itam gis ne xat na waaye ba léegi ñuy sàkku nag ñan ñoo koy yokk ci coow loolu lañ toll ndax gaaru ceer bi nag dafa nekkoon loo xam ñu bëri dañoo yàggoon di ko xaar di ko teertu ñu ne nag itam kanam lu mu rafet rafet am ay picc waaye sagam picc nag dañ koy faj buñ ko fajul bu yàggee itam kanaw nga ñaaw loolu nag la ñu ragal ci gaaru routière boo Baux ñu nga tey jubbanti waaye itam mbir mi yéex na yéexaay goo xamante ne am na ñu ci commencé xaddi ñu jëm ci ay fête yu mag yu mel ni tabaski voyage bi itam am na muy demee ci biir loolu yëpp nag niñ doon duppe ay ñu taxaw ci buntu kër yi ku génn dugg doo ci fayante taxi ak leneen ak kaar ñun itam ñu ñëw ne faw ñu dem ci gaar bi ñu ne bañu ñoo fay ñoom itam waaye dafa am ci anam yoo xamante ne ci lañ buggat liggéey ak ñoom loolu itam lu leen xawata tax tey ji itam ñu ne nañ waxtaane gaaru routière de Baux Maraîchers diggante gaaru routière ba na oto yay duggee ak nañuy dem ak ya fay génn ak kaar ya fay yëpp ak ya fay taxaw ak itam horaire yi nga xamante ne ñu ngi ci kon itam bëgg ñu fekk leen foofu te liggéey bi itam dëppoowul ak la ñu sàkku tax ñu prier ci ay nit ñoo xamante ne tey jii ku ci nekk loo ci wax rek day dal di doon téere ndax itam dafa nekk domaine boo xamante ne sa domaine la mooy domaine transport kon tax jii ñu ngi am ay gan yu mel ni ki kii di Cheikh Ndiaye Teranga Cheikh Ndiaye Teranga bokk ci syndicat des transports euh, monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ñu ngi fi ak Pierre Mbakhane Gomis Pierre Mbakhane Gomis nekk syndicat national des transports yu ci affilié à la CNTS di vice président boobu euh, topp ci kii di Alassane Ndoye Pierre Gomis ñu ngi lay ñu ngi lay fi ak kii di Gora Xuma Gora Xuma mu ngi bokk ci CNTS FC monsieur Xuma ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu Gora Xuma. transport yu ci CNTS FC. ñu ngi fii itam ak kii di Ibrahima Wade Ibrahima Wade mu ngi bokk ci conseil national des transports routiers CONTRAS monsieur Wade ñu ngi lay nuyu. Ousmane ñu ngi lay fay. ñu ngi rafet seen ñëpp ak ñi ngeen ñu wisee nii tey ci émission bi eh, di gërëm askan wi ñuy teewlu ci jamono yi ñu nekk kon gare routière de Baux Maraîchers nekk loo xamante ne tey jii mooy coow li yàggoon naa doon nag gént ci biir réew mi ñëpp ne nañ ko fexe indi ba xool ni muy mel ba mu feeñee itam am lu mu feeñaale ci ay ngéneel waaye itam ci ay jafe-jafe ci jafe yooyu nag itam nga xamante ne moo askan wi ñu bugg cee xam tey jii rek bu fekkoonte ne tey monsieur Goroxuma yéen ñi nga xamante ne ca njalbeen bokkoon ngeen ci ñi mbir mi yëngaloon bañ ne na gaaw ñëw ndax lu aju ci moderniser transport da ngeen cay ànd waaye tey jii ndax da cee gis loo xamante ne waroon ak la nga daan gént wala li nga yaakaaroon ci mbir mi. alhamdulilah ñu ngi ñaan ci barka limaamul di réew mi yàlla na fi jàmm yàgg par rapport ak sa question. ñun syndicat bi nga xam ne maa nekk ci bopp bi ci ko ci euh, Cheikh Diop di koy nuyu de passage ñun dañoo mës a wax ne garage pour marché gaar bu ñun de d'accord nañ te yàqamti nañ ko ndax fas théorie bi gis nañ ko nittali nañ ñu ko wax nañ ñu ko ñu gis ne nouveauté dafa baax ki transport ñuy wax ko mais mosu ñoo ñàkk di wax réserve ci pratique ba théorie bi rek moo fi nekkoon ñu wax ne bu théorie liy wax ci théorie bi day bu nekkee en habilitation mmh. ci terrain bi ñun dañuy continuer di wax waaw toujours rek mais dañoo gis ne ah phase théorique jeex na pratique moo des mais am bari na anomalie anomalie du du chauffeur si rek la métti du transporteur rek la métti mais passager yi tamit ci lañ bokk kon ñett ñi muy chauffeur muy transporteur kenn ku ne gis nga anomalie yu yaatu yoo xam ne yi ah dafa mérité na ay correction yu bare bare bare te doon warul nekk aw caaxaan lu ñu war a taxaw la kenn ku nekk Euh, le métti chauffeur ba ñu xool ko foofu ñu corrigé ko le métti transporteur ba ñu xool ko corrigé ko li matage métti passager bi aussi ñu corrigé ko foofu mhm. dinañ ci dellu soit léegi ci jafe-jafe yoo nga xamante ne moom ngay souligner ci askan wi nga xam ñoom ñooy jëfandikoo yëf yi ak chauffeurs yi ak transporteurs yi Pierre Mbakhane Gomis CNTS euh, syndicat national des transports routiers affilié à la CNTS yéen bokk ngeen ci ñu njëkkoon euh, dëddu mbir ay jafe-jafe la fiy jur ñu dem bam yàgg itam ngeen ànd ak masse bi ne nañ ko indi waaye bañ ko indee ba léegi itam yaakaar naa constat bi nga xamante ne Gora Khouma def na ko ci ay jafe-jafe yu ci feeñ est-ce que yow am nga yoo ci mën a euh, tënk euh, ci ay lim boo xamante ne seetlu nga ko ci ay problème jërëjëf euh, Ousmane jërëjëf gannaaw bu ma sant yàlla sama borom bi di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi di sant itam samay waajur ak samay dëkkoon te ñu ñaanal ñi faatu yàlla xaral àjjana way wéral di yàlla wéral leen ci afeete gannaaw yàlla génneen ci kaso yi nekk di samay kilifa mu di Guro mi jiite central CNTS Alassane Ndoye mi jiite syndicat mi bokk muy transport routier bu boot ci biir central CNTS di nuyu aussi ñi nga xam ne foofu ci waaye nekk tey doon transporteur baak chauffeur baak coxeur baak làgg-làggal baak pet ba ñoom lañu fi toogal te ñu leen di nu ñoom leen sant li nga wax nag ñun ñooy ñi doon bañ foog na toog naa fi ay yoon yu bare bari ci seen euh, plateau bi ci wuteeg ñu bari xalaat ak gis-gis ci wàllu garde pour maraîcher xëy na demoon na sax ay jamono bu ñu am na am na fu ñu tegoon fekk na fa ñu tegoon du woon lenn lu may rek jàppoon ne am na lu war na jiitu te amul mooy d'abord waxtaan ndax nit ak loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg ak loo ko yéene yéene mbubb mu war nga ko laaj gis bi mu bëgg war nga ko laaj itam taxawaayam mën koo na wala du yées loolu rek la woon waaye bi ne ba jëmi jamono ñu ma jot loo xam ne mosuma ko woon jot muy règlement intérieur ma jàngat ko jox na ma dëgg ca la ma doon bañ ak la ma doon tiit bi mu ñëwee le 19 juillet ñu def ci waxtaan xool xool itam protocole bi projet protocole boobu projet la woon ñu gis ne ba tey am na yoo xamante ne bi dafa mérite ay amendement bien sûr amandé nañu amandé waat nañu amandé wax nañu ci la ñu duggee waxtaan waxtaan woo ñu dugg nag comme ni ko góor a waxee sàng am na ñu mu tudd am na ñu mu tudd parce que pompier ba muy ne ca fa mu nekkoon daa bari lu mu bootoon ak ñu mu bootoon du woon chauffeur rek du woon coxeur rek du woon transporteur rek amoon na ñeneen ñu fa nekkoon muy ñoo xam ne gaaru ceeru pompier lañ doon daan seen doole bi ngeen di daan seen doole ci yenn gar wala ci yenn barab ñooñu dañ leen waroon a sóoraale bu waxtaan amoon muy commerçant yi muy gargotières yi muy euh, marchand ambulant yi muy ñi nga xam ne aussi ay ouvrier lañu de toute sorte xam nga yooyu dafa doon loo xam ne dafa nekkoon ay préalable yoo xam koo fàtte te na bu ñu xóotaloon waxtaan wi concerté wu ak ni nga waxee léegi nii ba tax nga woo ñu tey ñu nekk des acteurs professionnel di wax ci lu ñu xam di lu ñuy dund. moom aussi ragal naa ne kon tey fi ñëw du ñëw. léegi période bi dañu ko avale dafa war a leer ñu leeral leen dafa am ñii ñoo de ci biir kaaru ceeb bi Ousmane client bi mu ci jëkk parce que mooy kii dem mooy kii ñëw ki koy yóbbu moo ci topp muy kii yore oto bi parce que du ma tudd ki moom oto toot këram du tudd ki moom moom jënd oto jox ko chauffeur tëdd këram. yow mattu ko taw tewut amul duus boo mat ak mutut xamu ko parce que dorong ca duus ya mais chauffeur bi oto bi laay waxal bi ci des mooy gestionnaire bi nga xam ne agent yi nekk foofu nekk dépend ci gestionnaire bi te gestionnaire gestionnaire bi am recruté leen ñuy liggéey ak moom bi ci desaat mooy ñi nga xamante ni bii mooy agent sécurité agent sécurité bi muy police parce que police moo fa nekk comme agent bu officiel mais nekk na fa également ak ay auxiliaire muy ñu leen jox ñu leen jàppale ci liggéey bi foofu aussi dafa am problème boo ko xoolee kon ci problème sécurité am na problème ci problème acteur professionnel muy chauffeur am na problème ci problème agent yi nga xam ñoo ne ci gaar bi dafa liggéey am na problème ak client seen bopp am na problème bu fekk seen ba nga xam ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca garage bu pompier démb ak barki démb te peut-être tey waxtaan amoon xootal amoon. war nañu mën problème kese la. problème bari na ci ubbi na nag mu ngi dox. mais problème bu fekkee bi gën nañu privilégié concernant la ñu la leen rëcc bu ñu ko nangoo dabu mooy waxtaan ak acteur professionnel leen déglu mhm. peut-être mën nañu trouver solution ci léegi ñu fàttali nag ne ñooñu nga xam ne tudd nga leen di gestionnaire yaakaar naa diggante 72 heures yi mujj yi bu ñu xoolee seen téléphone li ñu leen woo ëpp na ñaar fukki yoon ku ci nekk ci directeur ba ci ba waaye nag ça dans le vide kenn jëlul moo tax teewuñu fi parce que bëggoon nañ aussi am seen version ñoom ñu koy gérer monsieur Ibrahima Wade ñu gis ne kon ci wàllu transport boobu boo maraîcher moom tudd na client bi tudd na chauffeur bi tudd na gestionnaire bi tudd na sécurité bi waaye itam ci biir itam ñi nga xam ne ay acteurs transport lañ di ay chauffeur ak ñooñu da ci am ñu ci gën a sonn ñu jàpp ne horaires yi aussi kenn demul ñu des parce que signé nañ mbir indi ko waaye dafa mel ni ba ñuy signé sax waxu horaire bokk ca woon wala boog ni ngeen di dund fan yi yaakaar naa bokkuloon ci li ngeen miinoon ci wàllu transport. Euh, ñu ngi sant. Euh, di sant euh, président directeur Sidi Lamine di rafetlu toogaay bi ndax fonk na lépp réew mi ba lépp lu fi xew rek bu woote ci ay xalaat ñu changé de ci pour ñu trouver terrain d'entente bu loolu jàllee may nuyu góor di nuyu Baye Seex ak mbaaxaan bi nga xam ñoo bokk plateau bi euh, bu loolu jàllee question bi nga ma laaj man su ma jàngatee digluwaat par rapport ak euh, bon marise ak bi ñu ko commencé ak léegi ak jafe-jafe yi nga xam ni moo ci xew avant ñu ñëw ci horaire yi jàngat euh, ci sama naataango yi ma dégg ñu wax euh, dafa mel ni biñ ko commencé am nañu nangu mais di xaar mais rassuré comme di ko góor a waxe mais dama foog ni sama grand muy mbaaxaan ñun ñoo mujje woon bañ gi bañ googu nag bi nga xam ne dañ ko mujjee dañoo créer woon lu ñuy wax ay commission di ci waxtaan pendant neuf mois nga xam ni du woon bon marisé rek euh, bari woon na ay point de revendication donc kon dama yaakaar ni ci protocole bii yi wax su fekkee woon commission yooyu ba nga xam ni euh, règlement intérieur boobu ñëw na ñun ñëpp ñu poog toog acteurs yi ak CETUD bi nga xam ni moo ko doon piloté ak gestionnaire bi ba ñu bokk tënk benn protocole boo xam ne bii nii ñun ñëpp bokk nañ ci d'accord yaakaar naa jafe-jafe yi am tey du am mais yaakaar naa loolu moo amul woon moo moo tax jafe-jafe yi am yëpp am parce que commission yooyu bi ñu ko doxee itam Euh, ba egg ba mu sori yaakaar naa ñu ci dañu xëy rek gis protocole d'accord xëy gis protocole d'accord boobu nag moo indi problème yi yépp parce que ku mel ni góoram mi fa mu féete woon wax na ko ne woon nag d'accord na ci rafetlu na ko mais mu ngi réservé di xaar voilà ba ba léegi donc kon ñun ñi nga xam dañoo amoon ay commission doon ci dox bu fekkante ba ñuy def protocole dañu toog ci point yooyu ñu xaati ba d'accord ci ay point bu dugg ci garage bi jafe-jafe yi du am mais yaakaar naa jafe-jafe yi moo ko jur li ci war ci horaire yi nag bu ñu waxee loolu dina ma jaaxal parce que kere bi ñuy présenté protocole ñoom am na ku proposé nii waaw horaire yi nag mais camarade dañu horaire yi ñëppay dugg dañ parce que dañ ni bu garage bi ubbee croisement Pikine benn oto duutu ko romb jëm Dakar kon horaires yi yaakaar naa waxaat nañ ci ba léegi kon horaires yi bañ ciy wax peut-être que ñi bokk ci commission ba ñëpp ñoo fa nekkul ba mën a d'accord wala ñu ñàkk a d'accord ci horaires yëpp dugg kon yaakaar naa moo indi jafe-jafe yi fi nekk kon nag dugg ci garage bi ginnaaw bu ñu ko rafetloo ñun ñëpp dañu rafetlu garage bi parce que biisu la bu ñu defal euh, transport Sénégal defal ko acteurs yi ak ñi nga xam ne ñooy voyager mais suñu demee ba nga xam ne jublu nañ ci horaire yi horaire dafa am leneen loo xam ne moom itam daf koy jariñ di ko jariñ askan wi ca loolu itam il faut bu ñu rafetloo garage bi mu ubbi nit ñi dugg ci il faut ñu rafetlu itam li nga xam ne moom la horaire yi doon jariñ askan wi kon bu fekkee dañoo bokk toog discuter kenn ku ne wax sa xalaat ñu xool ba d'accord ci benn affaire yaakaar naa jafe-jafe yu problème mu horaire du am mais problème mu garage bi ca biir intérieur ba jafe-jafe am su fekkee ne dañ ko toog ba waxtaanee ko ba ku fa dugg xam la nga fa war a def ak la nga fa war def xam fa nga war a yem ak fa nga war a yem stationnaire bi xam loolu kon yaakaar naa coow yu du am loolu nag yaakaar naa moo ñu indi jafe-jafe yi ñu am nii. d' accord bu ñu demee ba ci biir ñu jàngat point yooyu. yaatal ko d' accord incha allah Ibrahima Wade monsieur Cheikh Ndiaye Teranga parce que coow li boo koy seet euh, bu doon gëtt moom yaakaar nañ ne jur gi yëpp la jot. ñëpp ci am problème taxi aussi seen cas beneen cas particulier la parce que boo yoree taxi dem boo duggee da ngay fay ci biir taximaan yi bu ñëwee ci bunt bi la ñuy wàcc clients yi bu ñu fa nekkee itam client yegg si nga xam ne da ngay toog lu yàgg yeboo mu mel ni da nga war a profité dund ci kaw kooku parce que clients yi jooy yëpp sax ak fitna gi leen di teg foofu ñu bëggoon xam yow mi nga xamante ni géré nga secteur boobu yan jafe-jafe ak revendication nga nemmeeku yoo xamante ne aussi dal na seen kaw itam mu ngi lor askan wi waaw jërëjëf sëñ Ousmane maa ngi nuyu euh, ñi seetaan seen télé bi ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi di nuyu kilifa kër gi di Sidy Lamine comme ni ko suma naataango bi waxee nit la koo xam ne saa wu problème amee ci réew mi rek moom dana ubbi média am yëpp rajo télé laaj askan wi lan lañ ci xalaat oo ay acteurs yoo xam ne ci lañuy liggéey. ñu wax ci seen xalaat yaakaar naa ne bu ñëpp defoon noonu réew mi dina baax ñu ngi koy nuyu de passage. di bàyyiwuma kenn. waaw ah, jo jote leen ma leen. Euh, euh, problème mënul ñàkk ci lu bees tuxu bu ne dana am jafe-jafe tuxu yëpp am jafe-jafe waaye gare routière bi moom li may commencer mooy féliciter ñi ko xalaat. ba def ko félicité leen bu baax nag parce que euh, exemple la ci Afrique ñu bare ñu bëgg def lu mel noonu fim ne nii réew yi ñu wër yëpp ñu ngi bëgg a def lu mel nii kon nag comme def nañ ko ba pare ñu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax mu des nag jafe-jafe yi ñu wax am na fa euh, jafe-jafe yi départ foog mu am jafe-jafe mënoo fi nga nekkoon jëm feneen te du am jafe-jafe tuxul moo mel noonu euh, mënoo jóge ci informel itam jëm ci formel te du am jafe-jafe parce que nit ñi tàmmuñu ko nit ñi dañu tàmm juróom fukki at nga bëgg koo dindi foog coow dana bari waaye nag sëñ ab laat noon na soo amee yoon woo xam ne yoonu dëgg la yoon wu jub yoon wu jëm ci dëkku jàmm nee na bul gëstoo bul dégloo boo gëstoo da ngay tardé boo dégloo doo dem continuer rek loolu jafe-jafe am na jafe-jafe am na mbaa jubante ngi am waaye jubante ngi am waaw kay mm. noonu la mm. jafe-jafe am na waaye jubante bu ma ñëwee ci ñi bañoon ak ñi nangu mm. man ki ñi nangu laa bokkoon groupe bu ma ne man parce que gis naa ne pompier na ma meloon doonul lu war a mën a continuer nit ku normal bu demoon pompier gis ni pompier mel da nga xam ne pompier doonul lu war a mën a continuer buñ demee nag ba xalaat dindi ko yokk yaatuwaay bi yokk setaay bi yokk sécurité bi yokk ca dindi càmba càmba dindi lépp loo xam ne da doon lor nit ñu dindi ko fa indi lu mel nii boo maraîcher bi koo xam ne normal nga tey transport ngay tiitaroo transport si ngay liggéey boo maraîcher bi moom danga koy saluer dañ ci kontaan rafetlu ko rëq-rëq yi nag ñëpp jàpp ci pour pour pour defar ko ñi nga xam ne nangoon nañ amuñoon problème waaye ñi nga xam ne dañ ñoom waxtaan amoon na dégg naa ko wax ne bu ñu doon waxtaan waxtaan moom amoon na lool sax waxtaan yu baree baree bëri amoon na man bokk ma ca commission waaye ña nga xam ne ñoo bañoon ñuy waxtaan ak ñoom ñuy wax lu tax ñu bañ ñu wax leen li tax ñu war a nangu waxtaan woowa ña doon bañ a ko moomoon moo tax ñu leen doon ñoo ci doon dem mbaaxaan mii ci la bokkoon buñ toogal lu mu néew néew toog nañ fukki yoon waxtaan te itam waxtaan woowu retardé na ouverture bi un an kee ngi wax dix mois mois de août la waroon ubbi deux 2013 août 2014 la ubbi loolu un an la te waxtaan a ko indi. kon juboo mujj na ñooñu bañoon ne duñ ko def. Mhm. jiite ko par honorable député Alassane maa ngi koy nuyu de passage. di koy tamit sargal parce que moom. laaj li mu doon laaj ñu waxtaan ceek moom ba mu juboo bañ ñu juboo ne lii d' accord nañ ci état d' ci mu d' accord ci mu signé. d' xam nga signé moom. mooy d' accord naa moom moo signé léegi nag bu rëq-rëq amee mhm. rëq-rëq bi bi mu amee tamit jafe-jafe yi ànd naag ñiy seere gaaru ceer bi di di di régler di régler rëq-rëq yi mhm. suba ngoon presque mu ngi foofu di régler rëq-rëq yi ci ñi nga xam ne mhm. moom lañ gis ne war nañ koo regle d' accord nañ ci del kon Gora euh, leer na kon léegi Alassane Ndoye signé na mais ci turu syndicat yëpp la signé mbir mi protocole boobu kon yéen la engagé actuellement aujourd'hui xam nga damay ñëw ci problème taxi d' abord. taxi waaw wax naa ko. xam nga euh, dafa am loo xam ne man du ma ci mën a d' accord aéroport foo man di dem dañ ne la bu fekkee da nga yor oto. te war a taxaw xaar client danga war a fay droit mais wàcce client dem seen waroo fay benn droit moo tax taxi ku ñëw léegi ci buntu ba ngay taxaw. Mhm. ndax comme boo duggee ci biir di wàcce client bi dañ lay fay loo téeméer te jombul client bi 2000 francs la la fayoon. nga dugg ci biir di ko wàcc ñu ne da joxe téeméer moo dul yoon du yoon tey du doon ëllëg li ma d'accord daal boo ñëwee du wàcc sa client war faa xarab client nag da war a fare joxe droit ba nga xam ne moom nga war a joxe puisque yow ñëw wàcc kese da ngaa liggéey da war a inscrire da si tëggi xaalisu tur ba mu jot nga yeb dem mais wàcc sa client kese war a delluwaat ñu ne da ngay fakk fay téeméer loolu dafa miti gars yi client yi tamit sonn nañu ndax taximaan yu bari ci ñu gàddu seen dugg ci biir loolu dañ ci war a wax ci manquement yi la bokk dañu war a bàyyi rek taxi bi na dugg ci biir wàcce passager bi ak valise ba mu yore tourné demu yoonam. parce que dégg naa ñu ne sax am na ndax am na am déet. particulier démb laa dama ne waaw man li ma koy dudd. démb coow fa am ñu woo fa ba may ñëw taxi laa fekk foofu mu wàcc client policier bi jàpp ko. mu ne ko war fi da ngaa dugg ci biir mu ne ko du ma dugg ci biir ma ñëw ci policier bi ne wax na dëgg dugg ci biir bu dugg ci biir dafay téeméer. est-ce que xam nga ni ko client bi fayoon jomul ñaar téeméer la ko fayoon mu dugg ci biir bàyyi foofu téeméer loolu tegul fen bi ki des xam nga ñëpp d'accord nañ Sénégal ñëpp d'accord na ak ñu du Sénégal sax d'accord nañ ne garage bi daa war am na sécurité jegeñ na population muy banlieue bi kon nit du wax ne d'accord waaw nag dafa am ñoo xam ne ci loolu lañuy liggéey ñu transport bu ñu gisee ne am gàllankoor dañuy war ne gàllankoor ba waxuñu ne gàllankoor d'accorduñ ci gàllankoor ba la ñu wax ne d'accorduñ ci góor xaw ma dama na doo fa gëj waa nag du sama liggéey ba may xëy suba ngoon di fa dem fu problème amee bu ñu ma ooyee dinaa ñëw wax fa la ma war a wax def la ma war a def ca ña ma oo dem naa sama yoon. nga xool léegi actuellement nii da jóge jógee Kaolack benn chauffeur woon ma na ma dañu jàpp jóge Thiès yëpp ay joueurs dinañu yóbbu stade pour ñu fubali mu jëleen Thiès yóbbu leen ñu fubale ba pare mu war a leen yëbaat stade yóbbu leen Thiès ñu nag il faut nga il faut nga da am bon de bon de sortie pour fay tëggawul fay yaa nga fay bon bi fekkee danga nga jële jëlee client ba boo fa jëlee client ba da war a am da war a waru fa sax da war a dagg ticket ba pare soo ko faa jëlee client mais luyaasu jàmbur moo tax ma ne maa xaar ci màggal Touba màggal Touba nga xam ne oto yi fu nekk la ñuy jógee dinaa xool ndax oto yooyu ku dugg ku ku départ géej waaye dem Touba ndax di nga dagg bon 5000 gis nga transport la ñuy kon nañ aar transport transport ngi yàqu ba nga des kilifa gu mag bi ma yuuxu wax na ma ne ma yow li ngay wax du dëgg maanaam xooloo këyit ma ne ko xooluma këyit dañ nañu signé këyit ma waruñu ma ko këyit gi syndicat laay rek comme ñëpp kon ku signé ci këru njiit war nga xam photocopie mën ngaa jox nit ñi ñu xool li nga signé ba fii ma toog nii xaw ma lu ñu signé jombul ñoom xam nañ ko nit kii parce que da moom yow ma si ñëwul nag la nga ci gis nga ne man d'accorduma ci mais man dama daan jaf damaa yoroon charpente Euh, euh, euh, règlement d'exploitation bi yàgg naa ka yore ñu ne nangam ak nangam ak nangam nangam phase théorie bi gisuma ci négatif tout est positif tout est positif mais man li ma d'accord te d'accord ko mooy na ma yërmande am Sénégal gépp ba ñuy départ pompier dañoo dañuy jël pompier indi ko boo maraîcher loolu moo amoon dañoo dem ci biir ñu ne lépp képp ku yor licence bu xonq bu rombati Pikine loolu tegul fenn ndax DK yi daw fii yore licence bu xonq lañ daw dama ci yuuxu am ñu ma ci jàppale kilifa googu mën a wax ne la dana ma samay technicien li nga wax ne nañu loolu amul ndax da ñaari choix la woon dañ noon ku bëgg ku bëgg bu rouge kaa jël ko muy interurbain mais ñi ñëw bañ ma ne ko loolu amut tey bu boo woon ku ku am licence bu xonq yore DK kaa ñu jox la licence bu bu jaune ab rang lay doon kon nit ñi bëgg nañ licence bu jaune ndax bëgg nañ ci renouvellement bi dañ leen ko tere gouvernement bu Sénégal moo tere licence bu question nit ki moo ko bëgg baa bañ ko gouvernement bi moo ko tere kon Ndiaga Ndiaye dañ war a bàyyi ñu dugg bus dañ war a bàyyi ñu dugg ka bëgg a dem boo maraîcher nañ ko bàyyi bu dem boo maraîcher liggéey fa loolu la yoon war a santaane mais force na ñëpp Sénégal gépp na ñëw boo maraîcher góor xuma àndu ci tey góor xuma àndu la d'accord dinañ ci dellu si léegi kon Pierre Mbakhane Gomis yow mi nga xamante ne kon yaa jege signature bi xanaa nit war naa mën a xam li nekk signature bi ba mu war a engagé syndicaliste yi parce que côté boobu aussi lëndëm lëndëm gi des ngir naa jéem a attirer rek attention camarade bi ma fi toogal si ñun ñu fi toog benn nit lañu mu transport routier lañu mooy suñu métier am lu ñuy défendre heureusement tey yàlla def na corps étranger amul sunu biir maanaam amul ko jóge statut amul gestionnaire amul ko jóge ci administration amul ko jóge direction des transports ñun kese fi toog ay chauffeur ñi yëngu ci transport aussi jox ñu mandat yu toog fii tey ak lu fi mu waaye di wax la tax ngay wax mooy chauffeur yi ak transporteurs yi baat bi ñu la jox moo tax nga toog fii tey di wax ak li nga ci bokk kon nañ def attention prudent suñu biir parce que li tax ma wax loolu mooy dama dégle camarade Ibrahima en tout cas man maa ngi am xool règlement intérieur ak projet de protocole d'accord le 19 juillet 2014 man mu ngi nii si biir j'ai pris note mu ngi nii ci bës boobu laa gis projet aussi bu protocol d'accord projet je bien projet mais wax ni biñ defee ne am na amaan am na ay amendement yu ci def ma toog Assane Ndoye toog Karim Seck toog Colobane ak Modou Mbaye présidentu maa bu koloban yoo xam dañu kon nangu ñu corriger ça c'est un biñ demee ci état ministère sous la présidence du secrétaire général du ministre directeur des transports toog surtout toog amaat ay amendement ci la ñu de manière renvoi ba ñu mën a informer la base c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo ne ci région yi ci département yi ci commune yi ci gare routière yi yore oto yi di ko dawal wala ñu yore oto yi moom ko pour ñu woo leen defal leen information de mise à niveau si réglementaire bi ak si plate projet de plateforme kii bi protocole d'accord. léegi lu tax mu am ñu des. maa ngi ñëw te yegguñu ko. jëm si yàlla def na man maa woo ñëpp. moom mii maa ko woo maa woo keneen maa woo keneen kull koo xam dañu gëm ne ci syndicat CNTS nga bootu. mais lu tax mu yem ci CNTS. maa ngi waaw xam nga tax loolu. CNTS la doon bañ. CNTS lay yem. Touba ku fa dem gàmmu ji murit ba fa doon murit moo la fa ëpp doole. Tiwaawan ku fa dem gàmmu ji Tijaan ba fa doon Tijaan moo la fa ëpp doole mais ñëppay dem Touba ñëppay dem Tiwaawan. ak Laayeen. Ah. très bien synthèse laat moo doon toog fii man maa daan toog fii ak yeneen barab mën naa ko waxee fii ma toog tey ne ñoo lànk ñoo bañ parce que xam nga it bu ñuy dem bu ci biir parce que dañu xes li ma wax sax dañ ne pilule bi xes nañ ko naan dañu xool leneen mais fekkoon dinañu signé fa mu doon taxaw lay taxaw parce que dama wax ni kii toog nañ ci benn télé rajo télévision mais ñoo bokkoon xalaat li ci biir anam gisaguñu ko xamaguñu ko mooy mën a xam na dañuy nangu wala du ñu bañ ci laa amee règlement intérieur bi mais ba gisee règlement intérieur dafa gën a confirmer sama position ci bañ mais ci lañ moo ne projet protocole d'accord bi loolu amee man maa woo fukki télévision nag laay waxee te jàpp na Sénégal li ci ëpp ñu ngi may déglu bi mhm. ku ma xamul xam naa sama bopp Ousmane dama la bëgg a wax parce que occasion dañu ko war a leer li mu leer. ek foog is ne lañ bëgg a éga loolu di mu leer mhm. dama ne. Mhm. ñaari mun naa expliquer tax woo ma leen. mooy Kaffrine maa ngi jaale waale Omar Bala Signane président regroupement bu Kaffrine dafa gaañu. ñu nekk ci dëj naqar ak bànneex mënut a moo tax woo ma leen bi si des mooy Kédougou fi journal ne le 10 mai dañu ko installé fal ko maa fa demoon. kon kooku sori na ba pare c'est un débutant. mais beneen fukki région yeeg ñaari yi des yëpp. Mhm. responsable maa woo kenn par kenn téléphone man ils sont venus wala boog la grande majorité ñëw na. Mhm. ñu defal leen information de mise à niveau ci règlement intérieur bi à la bourse de travail synthèse. Mhm. leen information de mise à niveau. ci protocole d'accord bi. avant la bay ba avant la signature. amoon na ay amendement yu ñu ci amandé woon foofu ci biir ci dem ministère. ils ont ils ont donné mandat à Al-Sadd de signer Al-Sadd moom nit ñi booy si te joxo ko mandat na leer faut que ça soit clair il faut pas qu'on essaie de de diaboliser des situations ou bien des personnes Al-Sadd nit ñee ko jox mandat mu soog a signer bu ñu ko joxutoon mandat du signer te bu ñu ko joxutoon mandat bu bëggee signer man mu opposé ko man. d' accord sakantuma kenn faut que ça soit clair. d' accord léegi euh, monsieur euh, Ibrahima Wade xaalis bi nga xamante ne kon. Gora souligné na ko keneen souligné na ko parce que ku dugg rek dangay ngay fay xaalis boobu nga xamante ne mu ngi dugg ci garage bi ndax dellusiwaat na ci yéen acteurs yi wala boog lan la ci askan yi moom wala yéen xamu leen ba léegi ni ñu koy gérer ci wàllu garage bi. jërëjëf Ousmane euh, balaa ma tontu ci loolu rek. ma mm-hmm. xamal ni leeral. Mm-hmm. ak it xam ne gi amul ku ci bañ garage bi bañuñu ko saabu bu ñuy revendiquer ci condition la ñuy revendiquer mais bu bañu lu gaaral bi kenn gën lu bëgg lu baax euh, beneen bi ci des euh, euh, comme li grand bi wax ci protocole d'accord parce que xam nga da règlement intérieur dama ko jot gën a lànk nest pas loolu la ñu wax léegi après protocole d'accord jëw mais protocole d'accord boobu ñan ñoo ko def est-ce que commission bee ko def est-ce que ñu doon woo ci régions yi ñu ànd di xeex neuf mois yi ñoom ñoo ko def mais dañu xëy indi leen protocole d'accord ni leen waa ministère sax ñooy ñëw fii ñu signé ko amatuñ ca lu ñuy wax ñun bi ñu woo bourse dañu ni protocole d'accord baa ngi état bi lim doon bañ yépp nangu na ko ñu jàngal ñu ko laaj liñ doon bañ ñu ni alors oto yi Ndiaga Ndiaye yi ñu waxaat du dugg ci garage bi nangu nañ ko. ñu am licence pour def. Euh, social bi ñu waxaat ni chauffeur yi bu ñu dajee du ñu wut seen président euh, regroupement social boobu ñoo dimbalee nangu nañ ko nee nañu sax dañ koy mutualiser. ñu ne ñun loolu du lu bees kooku xeex nañ ko xeex bañ nangu ko dañu waxaat ni garage bi dañuy tuxal pompier pompier garage public la. bu ñu toxalee garage pompier yóbbu ko fee lanu doon bañ ñun ñëpp mooy alors garage bi du nekk privé wala day nekk privé ak public te moom la ñu wax même jour même saisonnière bi loolu la wax yooyu nag lañu ñu waral ñu discuter ci ba ñun ñëpp ñu bokk ci d'accord ñu xam alors social boobu bu duggee ci biir garage bi nan lay tëddee mais chauffeur yi nga xam ne ñoom ñooñu ñooñu mandaté ñoon ba tax ñuy wax fii ñoom ñu xam conditions yi lañ fay duggee bu ñu fa duggee ñu xam ñoom la ñu fa sañ ak la ñu fa sañul yooyu yëpp ñu bokk ko xaadim ba problème yi ñuy wax kon du am il faut ñu nangu ko parce que li ñu def bu baaxaan problème du am il faut ñu ñemente ñu wax dëgg ci ay nit ñooñu jiital ci ñun garage bi lu mu rafet rafet lu mu baax baax mais pour nit ñi rek la bu ci usager yi gisul seen bopp chauffeur fay dugg gisuñu seen bopp ñun gisuñu rafetaayam gisuñu baaxaayam parce que bu bum kese bu kenn solo amul benn njariñ ji waxee ci nit ñi fi nekk nii di ay responsable dañu war a xool lan mooy njariñu askan wi lan mooy njariñu chauffeur yi nga xam ne ñoom mandaté nit ñu dugg fa parce que tey kii li muy wax nii ci taxi yi man bi may ñëw nii benn taxi baa nag ma jox nii benn reçu bu mu fay boo xam ni alors bi mu bi mu bi mu duggee ci galas bi daa dugg rek ju fayeeku ci fii xoolal Ousmane lu ñu fi bind privé lañu fi bind mais privé la garas bi c'est privé loolu leer na xoolal lii xam nga lii lu ñu fànn la kenn du ko jeex mm-hmm. bon donc euh, il faut ñu wax ndax njaboot gi nga xam ni ñoo nu fi teg xaalis bii ñuy wax nii bu fekkente ne def nañ protocole bi d'accord nañ kat moo fa nekkal chauffeur yi amul social boobu ñu waxal ni dinañ leen mutualiser seen seen seen regroupement yooyu ngay def kan la fa amul parce que chef de garage bi nekkoon pompier maanaam jeexoon na am na ku ko opposé woon ba léegi dara leeru fa kan moo fa nekk jiite chauffeur bu jiite bu chauffeur amee problème kan moo fa kan lañ fa teg ñoom mu leen fa amu fa pas problème bu fa jóg léegi su fekkente ni stationnaire bi am na problème wala mu seen chauffeur boo xam ne ma ngay def lu mu dëgg wala bokkul ci le kan la koy wax amu fa kan moo fa ne kon loolu problème la xeex am na fa temps yi passé ci biir garage bi ci ñoom ña fa nekk ci biir di liggéey ci problème bu moo noonu moo ko indi kon problème nga fa kon protocole d'accord amul boo xam ne bu légitime la nañu waxante li nga xam ne moo fi nekk bu fekkente ne dafa amoon protocole d'accord bu légitime bu ñi d'accord ña nga xam ne dañ doon bañ ba xaatim ko ba dugg fa kenn ku fa dugg ku ne danga nga xam la nga fa war a def ak loo fa war a def la fa sañ ak loo fa sañ coow yi fa am nii du fa am te tànk réglé wuñ ko itam mm-hmm. coow yi du fa jóg kon daal luy dundee transport feeñ na waaye liy dundal transport gisagoo ko. gisaguñu ko. Mhm. c'est ça le problème. monsieur Cheikh Ndiaye Teranga. wax dama ne mhm. damay commencé ci taxi yi góor xuma wax ne ku fa dugg da ngay fay 500 francs dafa war a leer mu fii yéen da di leeral <laughs> leeru jamono ngeen wax. ñu mhm. leeral jamono ji. taxi yi dafa am parking ci biir gare boobu marché bi bu taxi am parkingu Dakar dem dikk am parkingu taf afti. taxe yooyu mooy wax ne da ngay fay cinq cent francs ticket bii wàdd génne fii c'est pour vingt quatre heures ay dem di ñëw liggéey ba vingt quatre heures bëggoo dugg ca gaaru ceet ba waaye client nga fa indi am na arrêt boo xam ne ci biti ngay gaare wàccee client bi chariot ñëw jël ko yóbbu ko ci oto ba mu jëm boo bëggul dugg doo fay dara dafa war a leer taxi na ma profité occasion leeralal leen loolu mu wax noonu demewul noonu kon yow boo fayee bi pour 24 heures. pour 24 heures la nga fay dem di dugg di ba ba ba keroog ngay wàcc minuit. dootul am dootoo fayaat dara. waaw hmm. ko dugg fay téeméer du noonu. Hmm. waaw bu ñu parce noonu la ko ñu comprendre kii di wax bu ñu diaboliser bu ñu hmm. diaboliser. taxi yi ñoom amuñu benn tawat foofu. léegi nag askan wi am bañ ko sax. créé nañ fa seen regroupement une deux cent euh, un groupe de deux cent personnes ut seen bureau yóbbu ko ca promoteur ba. Euh, seeran bi ba mu ba mu rafetlu ko ñooy coordonné seen bopp utal seen bopp ay silé yoo xam ne ku gis xam ne ñii ñooy réglementé ku ñëw ñu bind la benn coordinateur rek leen garage ba jox moo leen di réglementaire voilà léegi nag taximaan yi kon léegi ñëw jafe-jafe waaw mais aska yi nag am nañ jafe-jafe ci taximaan yi parce que am na client yu bëri yu ne mhm. bu ñu wàccee boo maraîcher mhm. dañoo waroon am voyage bu privé bu discret ci taxi fay taxi dem Dakar. Mhm. mais boo ñëwee dañ lay bokk bokkaale ci biir. très bien xam nga loolu mooy lu normal loolu. Hmm. te it ñu ngi koy corriger. Hmm. loolu ci semaine bii ñu ne balaa passé dana dañ loolu. Hmm. ba nga xam ne dañuy dañuy ut ay tarif yoo xam ne tarif yu méngoo ak li li euh, service yi ñuy def la par distance. jox ko gaar bi mu xool ko xool jox ko autorité ñu xool ko bañ approuvé ko ñu waxal ko nga xam ne ku jël client bu mel noonu rek da ngay daal di dem wax naa ne ne dafa am réglage boo xam ne il faut ñuy régler réglage rek lay doon ma ñëwati ki ne kii ne kenn nekkalu fa chauffeur yi loolu amul mm-hmm. parce que Alassane Ndoye Alassane Ndoye moo nga xam ne moo bañoon ba signé gare routière bu ubbi moom du wax ne kenn nekkalu fa chauffeur yi mm-hmm. non seulement kenn nekkal na fa chauffeur mais ñi nekkoon gare routière bu pompier jël ga privé bi jël na jëlal na leen trente personnes ñu fay liggéey. kooku GIE la. waaw boo xam ne regroupement. Alsaan Ndoye ko joxe parce que ci Bompé lañ nekkoon am na ñu jëlee poste am na ñu jëlee feneen feneen ñu ñu fay liggéey. waaw moom lim ci laaj Alsaan Ndoye kam fa teg ub um am fa bureau. Mhm. ubbi fa bureau teg seen ordinateur seen i nit toog fa Basiirou Ndiaye nga fa ñi xam nañ kan mooy Basiirou Ndiaye. Basiirou Ndiaye nga fa Modou Boy boobu wax ñu nga fa. alors buñ ne chauffeur yi boo jaaxlee amul ku ku leen ko réglé loolu amul. moom bu jaaxlee moom. maam moom bu jaaxlee moom fan la koy jooy mais moom parce que moom dafa nekkul di. bu jaaxlee moom moom bu moom bokk bokk ngi ci décident yi euh, bu jaaxlee kay moom moom c'est un décident. tey moom moog Alassane Ndoye àndoon man du ma ànd ak nit di bañ ba ma waa jooju ma àndal nangu signé ma maa bañ. man loolu du ko def. kooku problème conviction personnelle. waaw dafa parce que loolu. loolu man Ousmane man. waaw pour man <laughs> loolu pour man loolu mhm. euh, man xaw ànd boobu. d' accord le euh, Pierre Mbakhane Gomis waaw Pierre Mbakhane Gomis parce que ci fànn woowu nga xamante ne transport bi la individuel boobu nga xam ci taxi yi la. déjà gis nga fitna gi mu jur foofu yéen loolu yaakaar naa depuis temps de colonial ba léegi kenn gisu fi lu mel noonu mu feeñaat ak gare routière de Baux Maraîchers ci amendement yi ngeen di def est-ce que loolu bokkoon na ci wala da koy door a gis lu bees. par rapport li camarade Cheikh Ndiaye dara nga wax. ñun ay syndicats lañu responsable des transports routiers lañu. man ñoo pour en tant que responsable des chauffeurs tout court. ñoom en tant que responsable des transporteurs tout court. que responsable des passagers tout court. je suis responsable des transports routiers du la corporation sur le plan national. ma wax mu leer dama ne. problème mu taxi moom. la ci amoon tuuti mu bëggoon wax d'abord responsable bi wax na ko du ma ci dellusiwaat mooy le voyage collectif bi taxi doon def kooku tegul fenn taxi urbain dafa am vocation transport urbain dafa am vocation ay prérogative taxi transport individuel pourquoi parce que voyage secret lay def ki lay jël di la loué buggul kenn xam fu mu jëm bu loolu lool mu dem dugg ca car tata ba mm-hmm. wala ca mu ca dem dikk ba kon fi am na tarif yu yu commissaire du commerce teg ci transport bu mu doon ci urbain fii ci Sénégal nañu appliqué tarif yi point barre comme kii wax na ko jaar di seetal mooy ma mhm. yor mooy protocole d' accord bi kii c'est un projet mais c'est un protocole d' accord fii la Alassane Ndoye signé ak le ministre ma wax leen ma bëgg bu ma amee ku may lu may wax tey damay attirer attention gouvernement bi ci ne fukki point ak ñaar moo taxul ñu demoon grève en 2013 le ministre des sports Mbagnick Ndiaye ñëwoon doon jouer le rôle de facilitateur ba ñu lever mot d'ordre ñu woote ministre du travail Mansour Sy présider réunion bi ñu créer six commissions commission bu ne di liggéey ci kuréel ci point revendicatif ñu boole leen daa wax ne tey nag man am naa tey fierté bu toll ni fi ma daan toog ni lii ah ah lii ah lii ah ñii naan damaa soof ñii naan damaa bari wax ñii damay bëgg intérêt ñii damay dox intérêt responsabilité à travers monisité laa doon assume tey yàlla joxoon ma dëkk ci ñooñu muy client bi muy ñëpp tey client yi doon wax ne syndicat ñoo soof li ñu bëgg mënta ne tey ñoo gën a am problème ci biir gaaru ceeb bi kooku benn partenaire bu doon jàll mu ñëwaat business dama bëgg kii lii dañ ne syndicat CNTS bi nga xam ne moo négocier moo doon bañ taxoon mu grève boo marché bi ñuy grève boo marché bokkoon na ci point focal bi toxol grève bi réussir kooku dafa war a leer télévision laa nekk mu dégg kon moo décrétoon grève bi. non boobu waaw maa ngi yow doon non boobu parenthèse la. waaw tëj nañ ko. léegi damaa bëgg fu mu ci laa jëm si. waaw li ñu bëgg xam mooy. fi laa jëm si. li fii laa jëm si. waaw li garage bi non xam nga affaire yi nekkul débat CNTS. ak CNTS FC mais débat lan la garage bi mën a jëriñ chauffeur bi. ah kay un débat waaw loolu lañ bëgg a xam waaw. dañ koy débattre. non boobu question CNTS boobu non question CNTS ma toog CNTS. léegi réglé naa parce que signature bi signé ngeen wax ngeen li tax ngeen signé. waaw léegi nag garage bi nag léegi. ma ne mhm. kaaru ceer bi protocole d'accord bi dafa am ñetti point yu ci am solo dañ ne syndicat bi day liggéey en partenariat ak gestionnaire bi ça dañu fa am site boo xamante ne bi gracieusement la ñu ko jox bëggoon nañu seen laaj ay location soixante dix mille dañu ko lank ñun mun ñoo ñëw suñu ñu duñ ko loué ñu ne kon kon ñu fa loué dërëm aménagé ko dañu fa rotal waaw loolu pour seen syndicat la ah, non c'est pas waaw non Ousmane non Ousmane euh, Pierre non Ousmane pardon non non cest à bi nekkul question bi nga posé la ko tontu rek may non waxuñu CNTS ak gouvernement dama ne non noonu nañ dégg nañ dégluwante rek non nañ dégluwante rek bëgguñu euh, débat bi aussi nekk lan la CNTS di am ci garage bi lan la CNTS def ci garage bi non dañoo bëgg a xam askan wi askan wi ak chauffeur yi CNTS koy tudd parce que am mbooloo moo ko fal waaw léegi boolu représenté waaw dañ ne CNTS mooy structure syndicale bi nga xam ne ci la travailleurs yi bootu mais liggéey chauffeur dafay liggéey mhm. muy les acteurs ñoo tax syndicat ba ne fa mhm. ñoo tax ña fa teg ne kon ñooñu ku ci am problème da nga ñëw man mii fanaan daw cinq jours fanaan c' était pour s'enquérir que vit donc pour savoir ce que vit li nga xam ne moom la ñuy léegi lépp ngay dox wala lan moo fay. jafe dama ci laa jëm dama ne xam nga bu lépp doon dox ñu fi toog. Mhm. léegi lan mooy jafe-jafe xam nga li ma wax dañu la sécurité bi am na problème wax loolu la ubbee non mhm. acteurs yi muy chevalier am nañu problème loolu laa ubbee non clients yi am nañu problème loolu la ubbee non mais même agent yi fay liggéey am nañu problème. il faut que mu am harmonie pour ñu harmoniser nag moo tax ñu ne ci biir quatre-vingt-dix jours yi nga xam ne moom dañuy gaz bi départ di liggéey ñu ci gis comme amendement nañu ko wax su souligné ko c'est prévu ici mu ngi ci biir protocole bi mhm. bu ko temps moyen dañ koy génn ma lire ko article ba mu jeex temps moyen protocole bi ma yor dafi ne monsieur business mooy li am solo mooy xaw ma ku di jël otage ci àddina mais xam na ne ku ku seen baaxal ko sa dëpp du man. maa ngi ñëw dama bëgg a xam benn précision. Mm-hmm. xamal naa gestionnaire bi ne ko ak ña koy ñi tënku ca gaar ba ne leen joué la ja leen problème horaire yi di wax nii mm-hmm. ci biir protocole dañ ne bépp oto buy exercer transport interurbain ak transport international. Mm-hmm. dañ leen di loger ñoom ñëpp ci biir gaar bi c'est ça l'esprit il faut pas qu'on essaie de se tromper. loolu mën naa nekk aussi est-ce que loolu mën naa nekk. dama wax ni garde boo manché bañ koy wax ñu di ko bañ jàpp jàppal ci loolu bokk na ci tey ñi ko doon nangu tey bu ñëwee ba tey mbubb ñu sol ko ñu bëgg kii man xaw ma ko saa ay man xaw ma ko des décisions du ma ci dox. d' accord du ma ci dox. waaw d' accord léegi góor axuma ci côté boobu. parce que bu fekkente ne yow ni nga ko doon waxee ci licence yi ñu ne urbain ak inter urbain la léegi inter urbain yëpp ñu buggu leen loger ci biir euh, gare routière de Beaumarchais yow jàpp nga ne loolu mën naa nekk en un temps record. xam nga xam nga mbir mi nañ ko wax muy leer benn côté rek la nit ki mën a toogee fii mënu fee toogee ñaari côté ba chauffeur sa tax ñu toog fii. nga ne képp ku yore licence bu xonq danga war dugg ci garage bi yaa ngi rey si bërs ban oto moo fa dugg la war a xool ak bu fa dugg ci licence dama wax la actuellement ne DK Njaga Njaay daw fii ci dëkk bi yëpp licence bu xonq lañ yore xeex naa ci parce que Njaga Njaay boobu mënul daw mënul daw Kaolack mënul feneen te licence bu xonq la yore te ñoom bu ñu nee léegi ñoom lañ signé képp ku yore licence bu xonk foog nga war a dugg kon rey nañ chauffeur si dañu war a xool spécifique bi yan oto ñoo fara dugg bi ci des am naa tey lu leer nañ xam nga nit ki eh, dem grève baa nga def sa menace grève kooku bu ñu négocier kooku la ñu war a négocier loolu laa d'accord bu fekkee synthèse moo dem grève kuy négocier doo seen négocier ak synthèse FC kay dem grève ngay négocier waaye nag comme ni ko camarade Mbaxane waxee négocié nañu ak état jubóo nañu ak état ci condition yëpp ba ñëw nañu ñu wan leen ne gaar kon yéen yéen ci boobu yéen a moom ndax seen njaboot moo fa nekk comme dana suñu njaboot ñoo fa nekk dama ka dama kaa rafetlu waaye lañ may opportunité nag ñi nga xam ne bokkuñu seen tees ñu daw feneen ba ñëwoon suba ku bokk seen tees yaa fay dem ku bokku seen FC ku bo ku bokkul seen tees bu la neexee génn ci biti kenn du fa des kenn du fa des xam nga nañ bàyyi naxante bi gaara boobu synthèse moomu góob gaara bi public la ñëpp a ko bokk nit ki nag nam def ba am fu bureau moo ko xam kuñ waxalul duñ la jox bureau kañ waxal la jox bureau kon kañ waxal bu lu neex la na ko jël bu leelul naqar na ko jël man loolu laa d'accord ñoom ñoom lañ waxal bu dee lu rafet la ñun ñëpp nañu am ngor gu toll ne ñii ñoo def lu rafet li bu ne lu ñaaw tamit nañ ko accepté ne ñun ñoo def lu ñaaw li mais dama ne syndicat yi dañ fee bari boo maraîcher CNTS moomu ko dirigeant CNTS moomu ko kon bu ñu fa defee benn bureau ne CNTS moo ko moom bu ñu fa defee gestion GIE ne CNTS euh, GIE CNTS la kon a bàyyi nag léegi di addu kalfe ñi nga xam ne bokkuñu CNTS FC CNTS dañoo war a bàyyi nag képp chauffeur boo xam ne bokkoo CNTS nag nga séq direct rek ak bi kese bàyyi nag beneen syndicat bi te loolu amu fa bu la neexee tamit daw feneen dama ne garage CNTS moom ko CNTS moom ko loolu la ñun am nañ fi bureau la ngeen def ba am fi bureau yéen a ko xam mais garage bi ci boppam CNTS moom ko CNTS moom ko am na ci chauffeur yoo xam ne bokkuñ ci benn centrale te ña nga fa am na ñoo xam ne ci man lañ bokk am na ñoo xam ne ci ñeneen lañ bokk te pourtant bu laaj jotee ñëpp la ñuy laaj kon nañu wax la métti chauffeur si ci biir garage bi rek te bañu tudd centrale man loolu laa d'accord nañ wax la métti chauffeur si ak la transporteur bi ak la passage passager bi ñu mën a d'accord campé ñëpp usagers yi ci biir yëpp ci biir mais bu ñu bëggee ber na ñuy waa CNTS rek man d'accord naa ci de mais tamit nañ bàyyi beneen côté bi nga tamit bi leen xam ne yilifu leen sama nit bu ñëwee buñ ko laaj dara. d'accord kon daal waaw bi ci des damay ñëw ci problème taxi ba léegi. waaw doyen dafa am lu wax ba léegi man ànduma ci. dafa na ticket bii génne fii foofu organisé nañu ko ba benn kàddu fa am d'accord ma loola. waaw man maa juum kon. waaw waaw loolu juum na boo paree nga wax. maa am sama kàddu. Mm-hmm. ni day juum bu ma juumee nga wax. dama ne li fa am gestionnaire def ko kenn def ko nit boo bëggee lu ko neex da ngay def dëgg Mbaye Sarr du dof te ñëpp yéen a ko lu ñu yore mais mbir boo koy liggéeyal bëgg a neexal état baa nga bëgg a neexal Mbaye Sarr da nga teg ci yoon ñu ñun soo ji taxaw toog fii dama ne oto bi dugg taxi bi dugg war a ñëw xool taxi bi mais war a ñëw xool passager bi yëpp laa wax. kii yore valisam nga ne léegi bàyyi nañu ab arrêt ci biti bu bu bu dafa taxi bi taxaw. wàcce ko ñu jël chariot mais chariot bi nit ko du ci yëg bagage yaa ciy yëg dañoo war a bàyyi taxi mu dugg ci biir wàcce nit ki wàccee ay bagage moom la dépendre léegi ci moom la war a dépendre léegi hmm. moom ndax day xam day rang moo xam day dem bu dee day rang na dagg ticket 500 pour mu valable ci moom 4 24 heures bu dee nag tagul yabut nañ ko bàyyi mu dem liberté am loolu laa wax mais ne ku fa dugg na fay 24 euh, euh, heures xanaa kon force la ku fa ñëw rek da ngay daw foofu 24 heures am na ñoo xam benn wax lañ fay dem soxla wuñ fa ab kii naa rek lañ arrêté ñëw foofu nit nañ défendre ma ba mat tabañ di neexalaate euh, gis nga boo marché lu am solo la mais farfarloo bi dafa bari farfarloo bi dafa bari man état libre def d'accord naa état du wax ak góor xum ndax góor xum dana waaw kana déet lay waxal kana déet lay neexal pour mun a waaw kana déet moom lay neexal waxal ak moom teg moom pour mun a waaw waaw te ñu may fu fële parce que maanaam waaw kun waaw kay noppil mais man li ma wax dafa leer te ñi ma mën a tamit la ñuy wax dama ne ci phase théorie lañ fa wax man awma droit ne déedéet mais bu ñëw ci pratique gis naa pratique loo xam ne lii gis naa ne jaaduwut dama naa lii jaaduwut loolu ba léegi ne man dama noonu waaw tey mën a déedéet pratique bi baaxul ci gestionnaire ba pare. fi nekkee boo dee jam ñaajo coow laa nga fa kur feneen foo dem coow laa nga fa kur nit yooyu ñuy wax du nit du du nitu assemblée jël dama kër a rectifier dañu ne lu leer lañ wax dañu ne pompier dinañ fa jël tant la personne mais lijjanti wuñu fu waaj bokk ca ko ca ca personnel ba ko nekkoon. Mhm. Colobane dañ fay jël. Seras dañ fay jël buntu bi gën dañ fay jël post dañ fay jël. lii lañ fa nekk ñoom ñëpp bokkuñu ñu benn syndicat nga xam ne dañoo nekk ci engagement mbay sax ñoo ñëpp bokkuñu benn syndicat kon bañ leen di jël jël gi dañoo yokk dañ ko war a xeex ñun syndicat yi pour jël gi yokk mais ñoo ligganti syndicat buñ bokk buñ bokkut problème gaaru ceer ba Kër Massar ak ba Patek ba yooyu dama ne affiliation kenn mënu ko tere mais gestion gaaru routière boo marché dafa am espèce boo xam ne bokkul ak yeneen gare routière yi ndax comme amoo sañ-sañ kii dafa jaayam ndox indi fa def yu bare bare bare bare te ba nga yilif nga xam ne yaa yoroon sa gestion boppa yu bare da kaa yoroon bii dama ne dañ ko am moderniser kon kaddu ñu bare kenn wu fa am kaddu kaddu ko xam nan la mhm. yow boo indi sa oto da ngaa war ne fan place ba nga jëm ñu ne danga ak may fay inscription mhm. nga inscrire passage bu ñëw place sangam yow ñu dagal ko tiggéey ak catégorie oto ba mu soxla jeex na tag mhm. loolu moo fa war a am waaw am leneen wur fa kon yéen euh, fi nekk nii seen xel dalul ci ni garage bi war a jëriñ. non yaakaar nañ ne dina baax xam nga tax mu war a ñu yaakaar ne dina baax. ñun dañuy yuuxu pour mu baax. d'accord mais yuuxuñu pour mu tas. d'accord bi ku ko bëgg a tas yow sa bopp yaay tas. d'accord bi ku ko bëgg a jëlee yaa fi jóge ku ko bëgg a ñaawal yaa ko ñaawal. Mhm. mais ñun dañuy yuuxu pour ko gestionnaire bi ak état ñëpp ñëpp am benn réflexion bu ñu def sóoraale ci passager yi gis nga. man bu ma neexoon tey sax ma wax ne man passager tax ma toog fii gis nga waaye am passager la ko meñ mhm. te passager nga bëgg a nga jël a yéeg fan la nekk te dañ ne woon mhm. ci phase théorie bi mhm. dañ ne da ngay ñëw ñu daggal sa ticket wax destination bi nga jëm ak sa catégorie nga fay ñoonal passager yow Ousmane boo ñëwee baa man bu ma ñëwee na mbuur laa jëm ñu looy jël mën a bis laa jëm ma ko day am sonorisation boo xam ne mooy communiquer ak nit ñi comme aéroport aéroport ne leen. Mm. Cheikh Ndiaye Taranga kat Louga euh, nangam nangam nangam. Mm. am. orientation mm. orientation amu fa da ngay gis ko dagg ticket ba di wëndeelu gaara ba ak sa doom bay bëgg a dee doo xam sax oto foo ko jëlee te loolu nag dañ ko war a yuuxu kon ñu corrigé ko man du tafu ci état ba ma tafu ci gestionnaire bi parce que boo ko tafoo mm-hmm. day tax duñ xam dama war yuuxu pour ñu corrigé ko pour mu baax ci gestionnaire bi baax ci état baax ma déggee waxtaan bi ni mu tëddee nii dafa mel ni kon mbir mi am na groupe bu ndaw boo xamante ne seen mbir maas na ci fi waaye am na itam majorité bu rëy boo xamante ne ñu ngi ci fitna bu rëy ci gaaru gaaru ceer bi. waaw loolu dëgg la Ousmane euh, comme ni ko góor a waxee. Euh, Baye Cheikh man euh, Alsaan man du ma ànd ak nit di ko fakkastal bu ma ko doon def keroog ba téléphoné ni bul déclaré te ni Alsaan Gall la ci rajo laa koy baax mais man samay maay défendre son bopp. ma am sama choix man askan wi ñoo tax ma de ma toog fi di wax ak chauffeur si nga xam ne ñoo ma mandaté état taxul ma toog fi di wax saisonnière bi taxul ma toog fi di wax alsan taxul ma toog fi di wax dafa am lu may défendre ci transport di am ay principe di wax di am fu ma ko teg problème bii may wax nii du contre ma alsan la ma àndoon ak moom di ko bañ ba léegi moom laay bañ ay principe la woon parce que jàmmu chauffeur si acteurs yi usagers yi loolu lañ doon défendre man moom laay défendre ba léegi parce que yii may wax nii ay nit ñoo fay am ay problème am ay privilège du tax ba raay garage bi soxlawuma ko fa pour bañ a wax dëgg lu jariñ askan wi wala lu jariñ acteur transport yi garage bi soo demee ñu ngi fayee ko borom oto yi trente pour cent pour bagage bu oto borom bu génnee voyager bu buy fay rosi kuy fay moom bagage boobu bu mu fay trente bu ñu ko fayee ko trente pour cent bu bagage ba réeree ku koy fay borom bi borom oto boobu bu koy bu pneu tojee ku koy jën pneu du borom oto bi est-ce que loolu jaarul na ñun ñoo fi toogal transporteurs ñoo fi toogal chauffeurs yi waruñu raay bi ba am loo fa loolu fa nekk luy rey nit ñi ñu di ko jàmbat kenn du ko tudd baax na baax na baax na rek c'est pas normal. bu baaxoon kenn du nekk fii di wax. kon li ñuy défendre dañ ko xam ay principe la ñuy défendre. parce que côté bagage boobu voilà c'est ça am na ñu ko waxoon ne. moom uh-huh. lañ koy bëgg di tëralee ak pesage yooyu. waaw mais dafa mel ni actuellement oto yaa ngi ci bëgg sonn parce que leen ñu fayee ko la lu xaw a ëpp. sax cest à bi moo commencé gul ba léegi ñii. li ñuy wax ni garage bi commencé gul parce que garage bi di ko góor a waxee les principe yu mu war a am client bi dafa war a ñëw bu ci bunt bi mu ni mu ni euh, temps laa jëm fa lay daggee bi ñu peese fa bagage am mu fay par kilo ñu yóbbu ko loolu amagu fa. ñii ñuy wax vingt huit personnes yi ñu fa jël nii boo demee tey boo xoolee stationnaire bi ñoomu mu fa jël acteur transport yi ñoo ci gën a tuuti ñii fa nekk di liggéey di professionnel kenn embauché wu leen ñu contrat. amuñu liggéey bi moo tax bi ko ubbee coow li bari mënuñu liggéey liggéey bi moo tax ñu woo professionnel yu jaxasoo fa di liggéey moo tax encore lii di góor a wax mënagul a commencé parce que ñi ñu embauché ci bokkuñu ci transport. ñu nekk fa war a liggéey muy privé parce que dañu il faut ñu ñemee nii dañu privé lañ nekk ña fa war a liggéey du ñu ay acteur transport tuuti la fa vingt huit personnes lañ jël muy góor a doon wax léegi bon ñi nga xam ne ñoom la ñu jël ñu war a liggéey ba ñu ñëwee xamuñu liggéey bi garage bi jaxasoo oto bu fu nekk oto taxaw fa di woote coow li am alors ñoo ñu nga ca biir di jàng naka la ñuy defee liggéey bi bus bu ñu ko mënee ñii fa nekk nii dañuy génn dañuy dem seen yoon kon li tenteel li li nga xam ne moom la ñuy wax lu nu maîtriser la lu nu xam la chauffeurs yi ñu ngi jàmbat ci biir dama yaakaar nag su lu su su baaxoon nañ fi am parce que ramasse ma nga fay am boo toogee sa kaw porte bagage di ataaya wala nga génn ñu ramasse la moo fa indi woon histoire ba fa aman ba xeex am fa kon problème yooyu mu ngi fay am bon yeneen oto yi nga xam ne ñoo fa nekk aussi alors di jàmbat ci problème mu redevance yi fayeeku nañ fi ay redevance trente cinq mille vingt mille benn yemu ci yooyu yëpp bu ci ne day ñëw ci ñun ñu jox ñu rosi yi dem nañu di fi taxaw di fa fayeeku ay safar cent mille ay contravention yooyu yëpp mu ngi am ci biir garage bi il faut ñu wax ko parce que ñun ñooñu ñoo tax kuy toog fii nga toog fii ci place bi tey pour wax comprendre yooyu yëpp il faut ñu ñime ci egg am courage di ko wax ñu xool naka lañ waxee ni euh, garage bu amuñu chauffeur yi amuñu koo xam ne bu ñu amee problème ci la ñuy dem ay seex bul ma ni amul man respecté naa la neel gisoo ko kii syndicat la yow syndicat nga kii syndicat la garage pompier bi ñu tuxal président rek groupement la amoon mu am kees garage garage yi ci Sénégal yëpp loolu la ñu am. syndicat beneen affaire la. syndicat day dem bourse moom la ko état liggéeyal fa lay am fa lay am bureau mais gare routière sëfoor ñooy seet ka leen neex ñu fal ko muy seen président regroupement ñu fay cotiser seen xaalis ginnaaw bu ñu fayee de redevance muy seen kees goo xam ne bu ko accidenté wala ku néew doole ñu sàkk ci kees googu dimbali leen mais garage bi amu ci kon sëfoor amul amu fa dara cotiser wuñu xaalis pour denc fa sëfoor pour social te social boobu la ñu reconnaître dëgg man li may wax lu ma maîtriser la lu ma xam la te sëfoor si ñoo ko jàmbat moo fa indi woon histoire ba fa nekkan parce que ki nekkoon pompier mandaam jeex na am na ku ko opposé woon ñu ànd ñëw biir boo marisé tendance boobu am ci biir boo marisé ci mhm. nanguwuñ ko reconnaître nanguwuñ ko régler ci problème rek lay indi il faut ñu wax ne li nga xam ne mooy dëgg mhm. loolu boo fa am d' accord Ibrahima Wade monsieur Cheikh Ndiaye Teranga parce que boo déggee nit ñi ni ñu waxee kenn bañul garage bi démarré lu baax la xalaat nañ ko gént nañ ko mais li ci des moo bëri lu tax mbir mi gaawee nii kon ba ñu tàmbalee fi mu ne dégg naa fi moo raay dégg naa fi moo neex laate dégg naa fi lu dégg waaye dem la dama koy bàyyeeg euh, téléspectateurs yi ñu xam transport kan mooy neex laate kan mooy raay ak kan mooy daan raay loolu dama leen koy bàyyee man duma raay ku yàlla bind mais kenn mënu maa fexe jàng ma fare ci sa côté farewuma ci benn côté mais je dis la vérité dañu ne gaar pompier lañ toxal boo marisé du lan lañ wax ñan ñoo doon acteur Eh, eh, pompier pompier est-ce que acteur pompier am ngeen sëriñ bi déedéet. déedéet dama leen noonu acteur pompier et pompier dañ daan dem élection te daanu leen ci bokk. dañ daan dem élection waaye te daanu leen ci bokk mbaaxaan a ngi nii. man xam naa acteur pompier. pompier acteur pompier ñu nga gaaru boobu maraîcher ba. acteur Colobane yi ñu nga gaar boobu maraîcher acteur poste Thiaroye ñu nga gaar boobu maraîcher buntu Pikine ñu nga gaar boobu maraîcher. xam nga li nga xam ne moo mënta am gaaw mu ngi wax ne kii wëy privé la parce que c'est privatisé par l'État c'est privatisé par l'État État ko tabax 7 milliards de poussière privatisé ko ñi dem euh, compétition ki gañe ñëw seere ko c'est un privé oui pourquoi du am ticket privé privé la c'est privatisé biñ ko privatisé nag moom moo seere taxul mu moo ko moo ko moom nag mais moo koy gérer gérance boobu muy gérer nag moom moo koy gérer doo ko wax ni muy gérer ni mu koy gérer état la ko defal bu si état la ko defal ba teg ko ci yoon wan ko ñëpp ñu gis ko ñëpp liir kii am na ni ko kii amee noonu laa ko amee am na ko wax fii ne amu ko buggoo ko am boo ko buggee am kay boo ko laajee ministre sax mu jox boo ko laajee sitit mu jox la ko boo ko laajee promoteur bi mu jox la ko. kon xool ñu ko doy. du xool ñu ko doy mais du xool ñu ko doy ñi ñu déplacé bu ñu taxalee dëkk. dëkk boo ko toxalee yóbbu ko feneen mais waa dëkk bi ñu toxal kay moom ngay njëkk a waxal avant comme neex na nga ñëw sanc si